oui euh, oui alaikum, euh, wa Sénégal euh, di nuyu ñëpp di ñëw rek inna lillahi wa inna raji'un di rek di présenter condoléance la famille sec. dem si yàlla si Thione Seck ak njabootam ki ci gën a fës di Wally Ballago Seck ñu ngi fësal suñuy jaal ci jëm na àdduna bi nga xam ne euh, waajuram bu jigéen jaaga jën na àdduna euh, moom it euh, bésam ko yàlla emal te la yàlla jël ñu ngi koy jaalee donc Wally Seck ak famille sekk ak famille Ngéwél Seck ak euh, faramaare yëpp euh, di leen wax ni euh, yàlla bu soxlayee jaam bi ñàkk wax dëgg yàlla coon bu mu bàyyee ko fii yàggul waaye gis ngeen soxnaam tamit wuy ji na ko euh, ñi leen di ñaanal ñoom ñëpp yal na leen yàlla tijjil buntu àjjana yàlla seen jéggi siraat yomb euh, taxawaay bu ñu amoon ci seen njaboot ak ci réew mi ak di taxaw di jub di jubal ak di wax sénégalais pour ñu jubal à travers euh, les tubes de Thione Seck ñu ngi koy ñaanal yàlla moom Thione mi juutu soxna si ak soxna si ko top teru yalla leen yàlla teeru ajana di wax coon euh, balago sek ak ay frère ay sœuram dañe muñ euh, te xamne yalla bu soxla rek jambi ñak waaw mu nekkon nak nouvelle bu triste nouvelle bu triste mais nak dañ koy santé yalla li moy aduna mom coon sek boo leen dégluwee ay wëyu coon sek da ngeen ni gis ni toujours coon sec wëyam buy wëy daf lay dalay waar dalay delloo ci yàlla waaw euh, ku ma ku ma suivre la ci ay wéyam euh, tey bu amee tey Sénégal artiste bi nga xam ni topp naa ko quoi carrière ci ay tubam te mu nekk nit ku dëggu nit ku jub te lépp à travers euh, musique bi mu doon def mi ngi yee sénégalais yi mu ngi ñuy delloo ci yàlla mooy Thione waaw des fois nit ki bo jaxlé rek dama nga deglu Thione Seck di nga xamné aduna du dara waaw dégg nañ ko fi ndeysaan aduna mi ngi ni demal ma ngi ñew la hmm? yooyu yeb ah voilà euh, doom baay yooyu yëpp Thione Seck yee ci nit ñi yalla na ko yalla fay fa mu euh soxna si dem nak di nga xamné mo nekkon soxnam momi tamit yalla na ko fekk ci ajana euh, fekk ko ci ajana yàlla teeru leen ñoom ñëpp seen bàmmeel sedd guy yaatu yal leen yàlla musal ci mbugalum bàmmeel ak ñett fanu bàmmeel yal na ko ci yàlla musal yal yàlla yaatal seen bàmmeel yàlla leeral seen bàmmeel yàlla féexal seen bàmmeel di euh, dajee ak yërëm malayka yërmande teeru leen euh, ci seen bàmmeel euh, vraiment loolu lañu ñu mënoon am li ñu wax waali na ko na muñ nag je metti na lor mais lu jot yalla def wa donc li y amone message pour nous lancer euh, donc euh, wali euh, du ko xamal ni ak aussi tamit na ku ci nek xam nga lay faral di jël du ku ci c'est-à-dire waajal sa bopp mooy na nga préparer sa bàmmeel na préparer sa ëllëg sa bàmmeel am na solo trop euh, donc loolu mooy li nga xam ne jaal bi nga xam ne sénégalais yi ñu ngi koy jaale euh, Seckène yi euh, waa Falamare donc ki ci gën a fës mooy Wally Wally Ballago Seck patriote yëpp tam ñu ngi ko ci jaale jaal bi nag patriote yëpp la ñoo ko jaale à travers donc vidéo mooy def nii Euh, di ñaan yàlla donc euh, moom mi nga xam ne moo suñu yaay ji nga xam ne moo wàññeeku fii yàlla na ko yàlla teeru ci yërmandem voilà yàlla na ko yàlla teeru ci yërmandem yàlla ay jëfam fekk ko foofu ay ñaanam jullit yi ñaan yëpp ñaan yi ñaan yëpp euh, continue di leen fekk foofu donc lii moo nekkoon message bi nga xam ne vraiment moom laa bëggoon jàllale Euh, mu nekk euh, tiis waaye nag dañuy nangu rek borom bi moom moo am dëgg lépp lu mu dogal rek la rek am sañ-sañ rek def message vraiment euh, la famille sec di aussi wali ne ko na muñ dafa am doole ci ci doom top te na xam ne euh, yàllaa ngi fi yàlla mu ngi ak ñoom te sénégalais ñi nga ak moom jullit ñi nga ñoom di leen wax euh, du courage euh, nañu tenir bu baax nañu delloo yépp ci borom bi. parce que bu bu ñu xamee ni ñun ñëpp ci borom bi lañu jógee te ci borom bi lañu ñuy dellu kon nañu delloo lépp ci borom bi donc lii moo nekkoon message boo xam ne moom laa bëggoon lancer ci vidéo bu gàtt bi di ko jaalee donc ci tour patriote yépp Euh, ci tuuru Sénégal yëpp du ko jaale la Wally Seck ak euh, famille ñoom ñëpp di leen masaw euh, di leen wax ne donc yal na ko yàlla teeru ci àjjana yàlla ci yërmandeem bàmmeelam sedd guy yaatu yàlla leeral bàmmeelam ba bu mu ci bàmmeelam incha allah ci kattan amin yaa rabbi di ñaan nag ku ci nekk nga defal ko bu ñu jullee ñu defal leen donc fukki lixlaas ak benn

ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf.